nanu jàngi soo dee ndax ñu raw fee Allah ko ñu jàngi doo bi jiite ndaw lu jàngul doo الله الله jóg leen taxaw jóg leen taxaw ñu taaral baas bi jóg leen taxaw ñu taaral baas bi na rafet diine islam léppam dafa rafet jóg leen taxaw ñu taaral baas bi macha allah macha allah jóg leen dara gënu koo rafet rafet na trop macha allah lii rek mooy diine lii mooy islam lii mooy diine lii mooy islam lii moo taaral diine macha allah. alhamdulilah. ndeysaan. akbar yawmal xiyaam dinañ la allahu akbar masha allah malakan bayaran nanu jange nanu jange mm-hmm. nanu jange soño di ndax ñoo jëri ngeen jëf rafet na lool taaru na lool lii mooy diineel islaam mooy diine jàmm ji macha allah xoolal ma yaay booy ji xol bi fees na ba mi ngi baatare xale yi nii la jàng ñu jàng waaw waaw masha Assane wallaay sëñ Pape ndax yaa ngi xoolal baas bi lii rafet na lool ci bis lii rafet na lool ñii daje lan la ñuy def nga ne téere bi yàlla bi la ñuy màggal ñii daje lan la ñuy def nga ne lii lan la ñuy def lii lan la nga ne diine islam la ñuy màggal lii lan la nga ne taaru islam la ñuy wane fii xale yi mokkal alquran la ñuy sargal xale yi mokkal alquran la ñuy jox ay xéewal dama ne rafet na trop macha allah lii mooy diine lii mooy islam. xuraan de ñam doole na fekke dunya teewul la gën dina am xewal yu rëy ak ndam. bismillah ñun ñëpp ñu ànd ak toog Serigne moo diggee parcelle mooy dugub ñoo ngi ñaan na ñëpp toog. ñoo ngi ñaan na ñëpp toog jërë ngeen jëf rafet na trop ñoo ngi ñaan na ñëpp toog Serigne Modou Gueye bu parcelle mooy dugg si mu dikkee am njëgale naa ko xam way suru fab ay gone dem yóbbu dara jàngi yoo jàmbe am naa gone am mooy ki jox léppam daaray alquranul karim Serigne Modou Gueye mooy dugg si noonu mu parcelle dootuñ ko présenté kenn yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko xam taxawaayam ci daara jërë ngeen jëf macha allah waaye jërë ngeen jëf waajur yi macha allah baax na jërë ngeen jëf jëf xale yi yaakaar naa ne Baye woote na waaye itam xaritam yi soppeem yi wëllëre yi ak waajuru dong yi wuyu si ko ñu wax leen léegi ne leen Serigne Mody Gueye mooy dugg si noonu ci baas bi mi ngi nii toog di sunu baay di sunu Serigne di kilifa si ñun ñëpp moo wax ne Serigne Mody Gueye parcelle na kenn du ko laaj doy na sëkk nga ne kan mooy Serigne Mody Gueye nga ne mooy jullit xaqan nga ne kan mooy Serigne Mody Gueye nga ne mooy ki jox lépp yàlla sunu borom bi tabaaraka wa taala nga ne kan mooy Serigne moo Gueye nga ne mooy ki jox léppam alquranul karim nga ne kan mooy Serigne moo Gueye nga ne mooy ki fi njëkk ubbi daara internat ba daara yooyee tey ñaata daara ñëw ubbeekoo ci expérience am ak xam-xamam kon Serigne bi ñoo ngi lay dalal yow ak mboolem kilifa yi ngeen àndal di leen wax ahlan wa sahlan marhaban bikum yàlla ngeen fi gën a yàgg seen jëf yàlla na gën a barkeel seen résultat yàlla na yokku jëri ngeen jëf sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax liggéey bi nag day doog a xaaj mel na ni day doog a tàmbali incha allah ñu ngi wax ne sëriñ Baara Ndiaye bu jajji te yàgg ak Taala lool di jiite jumaa ji sa jajji moom it agsi na kon daal xam naa ne si kanam dana ñëwaat ci beneen këyit boo xamante ne danañ si bind mbooleem délégation yi gën leen ko présenté waaye fii ñu toll daal pour l'instant balaa ñoo continuer ci liggéey bi dana leen wax ne ñaari kilifa yu tedd teew nañ muy moo Modou Guèye di imam di sëriñ daara di kilifa goo xamante ne kenn du ko làcceeti si daara kon niñ ko waxee sëriñ Baara Ndiaye moom it di imaamu jajji imaamu ratibu jumaa ja teew na fi doon koo xam ne ku yàgg ak Baye Talla la di mbokkam di wóllëreem di xaritam di léppam Baye Cheikh Ndiaye ñoom ñëpp kilifa yi ànd ak Baye ci liggéey bi yëpp teew nañ kon waajur yi ñu ngi leen di xamal ne bég nañ ndax lii rek na war a demee Baye Talla moom bu wootee ñëpp a ko war a wuyu si ndax dafa jaay dundam gépp ngir téeréb sunu borom bi tabaraka wa taala kon xam naa ne duñ guddal lool ñu jox Serigne Kabou ñu jéem a wéyal programme bi bismillah Serigne Kabou kon mbokk yi ñu defaraat toogaay bi xam ne liggéey baa ngi door a tàmbali incha allahu muy fukki donga yi nga xam ne ñoom la yàlla defal tawféex nu mokkalee alquran ren ci daara ji dong bi ci jiitu Serigne Aline Diop kon mën naa yéeg Serigne Aline Diop incha allahu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 إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا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 صالحا نوتها وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء مع الذي في قلبه مرض في قلبه مرض وقل قولا مفعوعا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس عن ويطهركم تت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله bismillah macha allah Seydina Alioune Diop kon nu woo nu woo woy juram wala ku ko fi teewal mu jox jox ko diplôme am incha allah Serigne Aliou Diop ana woy juram wala ki ko fi teewal Serigne Modou Diop Serigne Modou Diop mi ngi fi bismillah kon Serigne Aliou mën ngaa wàcc sëñ Nas bismillah Abdoul Ahad Mbaye mën ngaa jege si taxawal na le sëriñ Abdul Ahad Mbaye mën ngaa yéeg aywa nat kii na le Abdul Ahad bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين كفروا بسم الله macha allah baax na si Abdul Ahad. sadaqallahul aziim. a'uudu billaahi mina shaytaani rajiim. bismillaahi rahmaani rahiim. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بسم الله allah baax na Abdoul Ahad Mbaye kon way juram wala ko fi teewal mën naa ñëw jox ko diplôme am comme Baye Modou mën naa ñëw Baye Modou Diop Baye Modou Diop mën naa ñëw Baye Modou bismillah boo yéegee nga jàngal ñu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن alif laam miim zaalika alkitaabu laa rayba fiih bismillah a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillah ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى baax sëriñ Modou Diop baax na kon ñu dem ci laajub ñaareel aoudu billahi min alshaytani arrajim laqad radiya allahu ani almuminina id yubayi'unaka tahta alshajara bismillah aoudu billahi min alshaytani arrajim laqad radiya allahu ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما عظيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وقد masha allah Baye Modou Diop kon nu woowee juróom mu jox ko ab diplôme am Baye Modou Diop. sadaqallahul azim. Baye Modou Diop waaw. kon ñu dem ci dong bi ci topp Serigne Mbacke Sylla Serigne Mbacke Sylla. bismillah kon Serigne Mbacke Sylla moo toog. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل بسم الله أعوذ بالله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 incha allah baax na sëriñ Mbacke Sylla. bismillah kon nu woo woy juróom mu ñëw nangul ko. bismillah. sëriñ Daaru aoudu billahi min ashaytani rajim. yasalunaka ani lahilla. bismillah. aoudu billahi min ashaytani يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم حسبك kenn pareegut si yow dañ laa may 10 minutes yoo xam ne da ngay jàng ba xol yëpp set ndax da nga di gone gu ndaw mokkal alquran mokkal bu rafet li ngay wax neex mbokki baas bi yëpp asalaamaaleykum damay ñaan une minute de silence sunu waajur yaa kumba ñu defal ko fukki xul xolaaw ak benn suñu soñoon nag baas bi day def teg ñun ñëpp ñu àndandoo kenn ku nekk jàng fukki xul xolaaw ak benn yéene ko yaa kumba yàlla tabal ko jannatul firdaws te woyofal suuf si kawam bismillah yàlla na ko yàlla nangu yàlla dafa doon mu doon jàmbaar ci liggéey bi te mënuñoo tase si bis yu mel nii te suñu xel du dem ci moom mu mel ni nag ñun liggéey yu mel nii buñ si àggee am na yëg-yëg bu ñuy am boo xam ne damay wax lu leer balaa maa nuyoo Baye Talla santul ma ko Baye Cheikh Ndiaye santul ma ko waaye maa ngi leen ñaan ñu may ma ma def li may def lii ma bëgg a def Baye Talla sant ma ko Baye Cheikh Ndiaye sant ma ko Baye moo Guèye mii ngi toog sant ma ko waaye maa ngi leen di ñaan ñoom ñu may ma ma def li ma bëgg def parce que bis bii ku ne desee am wàll man li ma jàpp ne mooy sama wàll mooy lii may def ndax dama koy def ci bisi alquran yi mooy baas bi ku ko xool da ngay xam ne ku woote bis bi cofut bis bi bis bi moom Baye Talla jël na ko au sérieux ñun xam nañ loolu cofu ko waxuma la dara li fi jaaraguñ si suba ba léegi ak yeneen yi bëgg a ñëw yëpp ak gone yi alxuraan ju rafet diñ tari xam naa ne sama bàyyi laa ruus waaye konoon gone gii dama koy teg sama dox bi yëkkati ko ñépp di ko séen ndax jar na ko jógal taxaw kii dafa mokkal alxuraan xam leen loolu bu baax kii dafa mokkal alxuraan alxuraan ji mu mokkal nag yéen ñi toog doomi soxna yaa ngi nii xam leen na alxuraan jooju téeméeri saar ñeent la alxuraan jooju juróom benn fukki isib la alxuraan joon nisf yi téeméer ñaar fukk la alxuraan joon robon yi ñaar téeméer ñeen fukk la alxuraan boobu sumun yi juróom-ñetti téeméer la ak juróom-ñetti fukk kii kon du ko ndaw kii ngand la kii jantal la yàlla na ko jig yàlla na ko jig yàlla na ci xam-xam topp te ay kemam bari nañ fi nag kon Baye Talla liggéey bu réy bii ñuy liggéey Baye Talla mënul tëb naan man maay diw maay def lii waaye ngir ñu waxtaan tuuti ci minute yu néew ci xel yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko suñu borom indee di ko liggéeyloo da ko booleeg ay sahabatul kiram yoo xam ne ñoo ko encadré di ko jàppatee ci lépp ñu gënoon cee miin ñeenti ñii Ousmane Aliyin Babacar Omar Omar dëggu lool ba yenent bi kenn du jëmee tappale ci moom Ousmane bëri wërsëg lool ba lu yenent bi bëgg sallallahu alayhi mu def ko Aline jàmbaar lool ba kenn du song yenent bi si jéem a xeex Ababacar Sadikh gëm ko lool moom it dëggu lool kon Baye taala mbokk yi nga àndal Baye Cheikh Ndiaye ak ñëpp rek yal na yàlla gën a guddal seen fan Serigne Touba mii nga xam ne ñun ñëpp moom lañ gën a miin ndax duñ naan kee te kii ne fi Serigne Touba mii bi mu ñëwee yàlla da koo booleeg ay mag yoo xamante ne buñ ko doon tudd fii ba ngoon du jeex ñu ànd ak moom di liggéey liggéey bu sell kon man li ma jàpp ne mën naa koo barkeloo ci bisu Baye Talla bii mooy ku nekk na ma fekk fii jox ma ab junne man ma fay baas bi ñeenti junne nag lay joxe man waaye ku nekk na ma fekk fii jox ma ab junne man ma jaayante fay baas bi sama ñeenti junne ngi nii Baye taala santul ma ko Baye Cheikh Ndiaye santul ma ko waaye dama leen di wax ne la xad radiyallahu anil mu'minin ñu ne lan isibaan yoo nekk taata sajara jaayante boobu laa woote fii ni ñëpp ñëw ñu jaayante lalal ma kol gi ne ñëpp ñëw par junne laa laaj lalal kii jël nañ ah yaa say yaa say sama yaay booy lalal ma kol gi juróom benn fukki junne daal laa bëgg fii ñu jaayante ko man ma fayee ko baas bi juróom benn fukki junne ñëpp laa wax na nag bàyyiwuma kenn koo xam ne mënoo ñëw jottalil ku la ko indil dama wax leen ne li may wax teguma ko ci daanukat na ngeen déglu bu baax li may wax jaayante dafa yàgg am ci islaam waaw bismillah jërëjëf jërëjëf macha allah jërëjëf waaw jërëjëf juróom benn fukki junne laa bëgg léegi léegi léegi ci mbalaat mii man ma fayee ko baas bi wala ma jàppee ko ci liggéey bi may wax ne ñun ñëpp ay jullit lañ ñi si ëpp ay taalibe Serigne Touba lañ xam nañ lu baax yàgg nañoo jaayante xam nañ liggéey bu rafet bàyyi taala liggéeyam bu rafet bii ñëpp ci war a jàpp damaa wax ne président de la république sax monsieur Macky Sall desee war a jàpp ak membre gouvernement bi yëpp trente trois cent mille laa soxla tegal ma fi ñaari jëwri ñu wàññil ma ko tegal ku bëgg wecc toogal toogal toogal macha allah xam nga li may wax a ngi nii bàyyi moo dugg bu joxee ñaari junne bàyyiwuma kenn de soxna yi góor yàlla yi si ginnaaw bàyyiwuma kenn bu dee soxna yi nag danaa leen teel a ñëwal si xistaab sama sëriñ ba sëñ Modou bu sa jëng yàlla ko yàlla dolli leer daf doon wax ne fu ma wootee jigéen ñi ñëw fay ëpp fu ma laajee jigéen ñi ñooy ëpp luñ joxe waaye dinaa leen ñaanal luñ liggéey te lu seen sëriñ liggéey jox leen te duñ ko sañ a bañ waxi sëriñ Modou bu si te ku ne xam ne ne àgg nañ sa si jamono sunu yaay yu baax yi di yaayu gone yi sañse yu rafet lañ sa te koo si dem këram da koy naw lool yàlla na gën a yàgg ci yéen nag yàlla na leen jig yàlla ngeen di sañ sañse sañse yu rafet te yor xaalis bu bari juróom benn fukki junne laa bëgg fii ci mbalaan mi man ma jàppee ko ci liggéey bi li ma siy dolli ba tax ma ne leen waxuma waxu daanukat wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah ñun ñëpp a ko xam du ay caaxaan wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifu wa huwa xayru raziqin ñun ñëpp a ko xam du ay caaxaan kon dafa fekk ne am na loo xam ne ngir nga am ko faw da ngay làmb sa poos damay wax ne liggéeyu Baay Taala bu réy bi ñun ñëpp bu ñu si bëggee jàpp kenn ku ne la si sa poos da nga koy génnee teg fii ñu jàppee ko ci liggéey bi kon na bar ta bari juróom benn fukki junni laa soxla fii ñu jàppee ko si bi ku baax ci sëñ daaru laa toogal yow pareeguñ si yow xool leen xale yi njàng mu rafet ni ñu jàng fii xool leen alxuraan ji ni mu mokkee xool leen xale yi ñu ni civilisé te xale yi ni ñuy jàngee alxuraan macha allah macha allah bismillah xale yi ni ñuy jàngee alxuraan ji la ñuy jàngee français bi di si am ay diplôme mu leer na la Baye Talla moom produiram bii bu ko ko yàlla nangulee jërëjëf bari na lool. damay wax ne lii may wax nii. bëgguma kenn naan ku soof kalam doon wax wala ku ñaaw kalam doon wax buñ ko waxee nag baax na waaye damaa bëgg ñun ñëpp ñu jariñu gis nga boo demee ci àll bi dëkk yi ci àll bi am na garab yoo xamante ne boo si bëggee jariñu da ngay jël saw saw yet nii ngay def ci garab bi lu mel ni buy mu daanu nga jël ak leneen ak leneen moo tax gësëm dafa baax ci ay jullit gësam dafa baax ci ay taalibe fii nañ fi teg loo xamante ne ëllëg ku si ñibbi da ngay xam ne la ma tegoon fee tey moo moo lii ndax man jaa abil hasanati fa loo xasru am saaliha wax dëgg yàlla kon boo ñëwee bu la leeree ne boo tegee fii benn dërëm di nga am fukki dërëm ëllëg boo fi tegee téeméer di nga am junne ëllëg boo fi tegee ñaari junne di nga am fukki junne ëllëg wax dëgg yàlla lu tee ñu teg fii compte banque bi mooy compte banque bi gën a duun boo xam ne loo fi leble yàlla téeméeram la koy fay mbokk yi buñ di nax suñu bopp bis si mel nii buñ si tasee dañoo war a xam ne kii gi nga xam ne mooy jonjoo liggéey bi sonn na trop Baye Saala gor Baye Taala gor la du wax kenn dara du laaj kenn waaye ku sonn la ndax lii gëm-gëmam ak lii liggéeyam ak lii objectif am mooy xale yi nañu mokkal alxuraan nañu nekk ci condition yi baax naa leen jàngal yar leen ba ñu yeewu ma yar leen ba ñu ne nër ma yee leen ba ñu ne jar la sëñ Fallou waxoon sëñ Fallou daf noonu sunu waajuroo Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul daf ñoo jàngal bañ ñu ne ar mu yar ñu ba ñu ne nër mu yee ñu ba ñu ne jar bàyyi taale mii loolu lay def yàlla na fi yàgg te wér kontaan nañ trop xajut si woon waaye dañ ko see jéem a xaj xale pour bëggal leen jariñ yéen ñëpp nag jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah waa kay sëñ Omar jërëjëf bàyyi taale moom way jur bu baax la woo am yéene ci daara ji am ko ci donga yi na moo tax bu ñu toppee ak mbaaxam rek mën nañoo loroo ci jëmmam mooy fexe ba rek ñu yëg ne liggéeyub lislaam la yor jullit ñëpp mook ñoom moo ko bokk su doon teraanga dong lim ci am mën na koo teral li des ci dundam kon fi ay atam toll ak ni muy ñaqee di sonn wax dëgg yàlla saabu bu jullit ñi daje te mu dajale leen rek war nañoo seral ab xolam bu baax ci làmb suñuy addiya joxe kon ndongo bi toog mooy sëriñ daara faam kon nga dem ci barab bu ñaareel bi rek te daaneel ah sëriñ daaru sëriñ daaru waaw sëriñ daaru asan njaay macha allahu waaw kay moom lañ ko tibbee sëriñ daaru asan njaay macha allahu jërëjëf aoudu billahi min alshaytani rajim وعنت الوجوه للحي القيوم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصار